mbokki Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen nuyoo nag ci euh, kër imaam Serigne El Hadji As Baro Ndiéguène di imam ratib bu Euh, dëkk bi waaye itam nekk nag président de imam et oulama euh, bu raison bu Thiès moom nag la ñu ñëw seet si ci bës bu tedd bës bu màgg di bësu Arafat euh, nga xam ne nag xel yëpp dafa dem ci jullik tabaski moom la ñu fas yéene tey équipe bu Thiès info ñëw seet si ko fas ne waxtaan ak moom ci jullik tabaski li nga xam ne moom moo ci farata ak anam bi nga xam ne noonee lañ koy taxawalee fii ci réewum Sénégal sëriñ bi maa ngi lay nuyu. Euh, di la ziar bu baax a baax di la ndokkeel ci bésu arafaat bu tedd bi euh, di la jox sa wàccuwaay di la bàyyi nga nuyook ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu ci Thiès Info. alhamdulillah summa salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma baadu assalaamu aleykum wa télévision bi nga xam ne muy in euh, Thiès info ñoo xam ne ñoo ñu nuy si di ñu seet si di waxtaan ak ñun bëgg tam ma waxtaan ak yéen ñoom ci li nga xamee ne mooy tabaski di arafa yooyu yëpp ñu waxtaane ko incha allahu ak leneen loo xamee ne laaj nañ ma ko tam Ah, te la ma ca xam dinaa la dinaa leen ko wax tam. jërëjëf jërëjëf sëriñ bi dañuy dikk rek ci laaj bu njëkk mu jëm ci eh, bésu tabaski lan mooy historique eh, bés bi ba nga xam ne tey bu ñëwee rek jullit yëpp dañu koy màggal eh, ci àdduna wërngal këpp. alhamdulilah li ñuy wax tabaski sunnatul mu akkada la tuuti rek yonent bi def ko farata. mooy sunna boo xamee ne dañ koo euh, dañ koo tawkiidal dañ koo hmm, dëgëral bu baax a baax a baax euh, ndax yonent bi ba mu demee jógee Màkka dem Madinatul wara dafa fekk waa Madina di am ñaari bés yoo xam ne dañ ko daan fo waaw di ci fo di ci fecc di ci bëre waaw yonent bi daldi ne dama bëgg ñaari bés ba yooyu ñu wëlbati ko def ko ñaari bési diine muy bésu korite ak bésu tabaski korite nag su ñëwee dafa fekk ñu wooroon muy daanaka muy troisième pilier de lislaam di koor ga ndax julli azaka koor ak euh, aji màkka ak baatu seede yi yooyu ñooy juróom yi nga xam ne ñooy ponkul lislaam ba mu ñëwee nag ñuy woor su ñu wooree ba pare nag ba ju euh, euh, fanweeri fan yi nga xamee ne moom lañu wax ne nañ ko woor ba mu jeex ñu sante ko yàlla nag def feet feetu cant boo xam ne dañ koy sant yàlla waaw ndax yàlla fekkal nañu woor gi ñu woor ko comme ni ko yàlla digle comme yonent bi ni mu ko bëggee ba loolu paase su loolu paase nag ñu sant yàlla def benn bés boo xamee ne dañ cay julli mbooloo yëpp dañu mbooloo mi yëpp jullit yëpp dañuy dajaloo pour julli euh, def seen xutba ah waxtaan ci euh, euh, daal saafonte nuyoo dimbalante doxaan mbokk gi loolu moo waral loolu nga xam ne mooy korité ñu teg ci tabaski nag tabaski moom moo gën a neex ndax xar yañ cay rey ak boisson yañ cay joxe ak teralaata gi daal di bégal sa sa sa sa wayjur say ak sa doom sa njaboot nga bëggal leen bu baax a baax a baax loolu euh, mu euh, tabaarakallahu bés bu neex la boo xamee ne euh, yonent bi sallallahu alayhi daf ko dogal muy sunnatul muakkada boo xamee ne tuuti rek ñu ne mu nekk farata waaw loolu pour bëggal sa sa njaboot pour doxaat mbokk gi pour dem ziarante ah yooyu yëpp la bokk na ci biir euh, boole ci nag xar mi nga xam ne moom la ñuy rey euh, daal di daal di xéewlu bu baax a baax a baax ci tabaski xéewlu baax euh, waxtaan nekk benn loolu mooy tabaski ci ci ci ci bés bi ndax am na lu ci nga xam ne euh, moom moo ci farata bi nga xam ne moom la jullit bi war a def ngir ñu mën a xaw ne am na tabaski. waaw euh, fokk farata boobu su fekkee tabaski la su fekkee ne mën nga rey xar nga rey xar xar moo xamee ne nag xar mu wér lay doon. xar moo xamee ne du am benn euh, mejj-mejj xar mu wér nga rey ko waane nag nga rey ko ànd koog imaam bi nga xamee ne mooy imaamu dëkk bi nga nga nga reddi ko yéene ci ne da koy tabaske pour jaamoo ko yàlla te pour dundal sunna ndaxte dundal sunna bi nga xamee ni sunu maam Ibrahim uh, rayaloon nañ ko joxoon nañ ko gàtt bu mel noonu pour mu reyal ko weccee ko ka nga xam ne mooy Ismaayil ma nga xamee ni daf ne woon uh, daf ko daf koy rendi ngir terale ko yàlla far yàlla jël ca xari àjjana ya ñu ne ci xar yooya indi ko mu rendi ko boobu ba tey nag yonent yàlla muhammad bi nga xamee ne ñëw na ci islam bi ah, indi islam bi loola daf ko daf ko feddaliwaat daal di ne daal képp koo xamee ne eh, ànd nga ak l'islam bi te bëgg a feddali sunna yonent bi sallallahu ba mu doon def ah fokk xar mooma soo ko mënee jënd nga jënd ko rendi ko jox ko sa sa njaboot ak say wayjur ak képp koo xamee ni mën na ca xewlu nga may ko ca tabarakallahu ah, muy bisu feetu feet yoo xam ne ñëpp dañ ci war a kontaan waaw. Euh, bu ñuy wax ci euh, histoire yonent yàlla Ibrahim ak Ismaël euh, ci ndigal bi nga xam ne jotoon na ko suñu borom ngir fas yéene rey nga xam ne moo di doomam jooju ba loolu yëpp wëlbatiku nekk xar lan ban histoire la suñu boroom di jàngale ci ci ci loolu ci taxawaay bi nga xam ne jullit yi moom lañ ci war a am. la mu cay digle moo di ne dañoo war. Euh, dindi aada aada joo xamee ne du aada ju baaxul la ndaxte tam am na ñoo xam ne dañuy dañuy rey xar reyuñ ko ngir jaamoo ko yàlla wan dañ koy rey pour ay xàmb walla yu demee noonu yooye nag yooyu pour yonent bi dindi ko moo tax mu dindi ko ndaxte tam ku seet sax kaaba ga xeer la woon woo xamee ne ah yëfër yi avant que l'islam da daan ñëw dañ ko daan wër def mu neen di tàccu ak di fecc ak yooyu yëpp waane jubluwuñ ci woon jaamu yàlla waane yonent bi bi mu ñëwee loolu yëpp la dégagé daal di ne léegi dañ koy wër ngir yàlla xeer la boo xamee ne dañ koy wër ngir yàlla ndax ku ko wërul amoo aj ku ko wër te waroo ko ak yéene bu sell boo xam ne islaam la kooku amu aj bi nga xam ne aju islaam moom la nangu muy cinquième pilier de l'islam bi nga xamee ne moom euh, euh, ci ci arkaanul islam la bokk ci pilier de l'islam yi la bokk muy aj képp koo xam ne dafay aji te kaaba gi nga euh, ajoo euh, euh, wëroo ko ci aj bi yàq nga benn ponk bu rëy ci ci ci aj waaw te it indi woo la nga xam ne yonent bi loolu moo tax mu indi aj ndax lépp def ko changé ngir yàlla lépp def ko changé ci l'islam lépp def ko changé ci aqida al islamiya ci pas-pasu diine waane loolu dafay bëgg déra euh, déplacer lépp loo xamee ne euh, ay xàmb la walla defoo ko ngir yàlla def ko ngir bokkaale loolu yonent bi loolu la ci jublu waane loolu tam su fekkee ne ci euh, tabaski bi tam xar moomu tam loolu da cee da cee da cee am yoon da cee am da cee am alors imam El Hadj As Baro Baro Ndiéguène euh, beneen euh, laaj bi dafay jëm ci ci bésu Arafat ndax ñi nga xam ne xëy na seen njàng euh, soriwul mel ni man dañuy jàpp ne bu ñu bës defee Arafat bu ñu xëyee ba sa ëllëg si rek dañoo dañoo dañoo war a julli te ñu gis ne tey mooy bësu Arafat Euh, julli gi altine lañ ko jàpp ci lu bari ci réewum Sénégal euh, te ñaari julli yooyu nga xam ne jamono jii dañ ko nemmeeku ci ci ci réewum Sénégal euh, loole moom lan moo ci lan moo ci war ndax bu ñu arafaatee ba noppi bu ñu xëyee dañoo war a julli wala julli gi moom tënkuwut ci bésu si bésu arafaat. arafaat bis bu màgg la ci aj ndaxte. yonent bi nee na alxajju arafa mu ne aj arafa la arafa soo ko defee soo ko deful amoo aj waaw kon nag bés bu màgg la te ci niñ ko daan defee su fekkee ne arafa nañ ba ca bés bésu ba ca bés ba ca tegu dañ daan tabaski waaw waane nag loolu yëpp tam mu ngi dépendre ci ni nga xam ne mooy calendrier islam bi calendrier isma islam euh, dafa mel ni zone yi yëpp zone yi du duñu benn ndax euh, dafa am sharq ak xarb charq ak xarb am euh, fu mel ni euh, Makka charq la fu mel ni Sénégal xarb la ci diggante bi nag am na décalage bu mag waaw ñi nga xam ne nag wa ilmu nujum yi ñi nga xam ne ñoo ko calculer ba def ko loolu dañ koo booleeg charia puisque balaa charia dox fokk mu ànd lu ñuy wax ilm la science science tam balaa dox ñu jële ko ñu jëme ko ci lislaam fok mu ànd ak su ko defee suñu boole charia ak science affaire bi mën naa jub mën naa dox waane waa charia rek mënuñoo doxal jamono joo xamee ne ah dafa nekk ci euh, science waa science tam mënuñoo doxal islam bi sans ñu dajeeg waa charia waaw ah man de fa ma nekkoon ci Qahira xam naa ne nag at yi mën naa bañ a nekk benn waane liñ daan def mooy su fekkee ne bisu sentu sentu weer jot na pour ñu woor su jotee dañuy dem fa ñuy wax daarul ifta mooy fa nga xamee ne mooy kër kër ga nga xamee ne fa la ñuy euh, gàggante ñi ñi gàgg ci affaire charia beeg yu demee noonu mooy daarul ifta waaw dafa am ay mufti dëkk mufti yoo xamee ne dañuy euh, atte dañoo xam diine bu baax a baax baax a baax waane teewul tam ñu wut fa ay ay ay loupe ay euh, matériel boo xam ne c'est scientifique ñu indi ko teg ko waaw su séntu jotee su séntu wor jotee woor pour ñu wor suba wala ñuy séntu weer pour wori suba wala bés bu ñu bés bu ñu wax ñëpp dañu ñëw mufti bi day ñëw ministre des affaires religieuses ñëw wasirul awqaf ñëw ah le ministre de l'intérieur ñëw ñu teg machine yi météorologiste yi ñëw ah ahlul fuqaha ñi nga xam ne ay faqiya lañu ñëw su ko defee ñu ñëpp suñu dajee ci daarul ifta bi nag ah di sintu weer bi soit weeru woor wi wala wooru weeru korité bi puisque yooyu yëpp mu ngi dépendre comme tabaskeeg yooyu mu ngi mu ngi dépendre ci korité xamoo ah, ñu ngi dépendre tam ci koor benn bés la woor ñu seet ko mu répercuté waat ah, dellu ci kori bésu kori bésu kori day dellu ci tabaski noonu lañ koy defee ba ci tabaski ba ci gàmm noonu lay continuer noonu la war a continuer su ko defee ñooña nag dañuy toog séntu weer bi scientifique yi seet météorologiste yi seet weer wi ci seen lupp yeeg yooyu yëpp seen matériel bu gën a sophistiqué dañ koy indi waaw su ko defee euh, euh, euh, mufti bi ak ahlu sharia bi fuqaha yi ñi nga xam ne autorité lañu ci réew mi dañuy dikk toog ñoom ñëpp suñu toogee nag séntu suñ ko gisee walillahi alhamdu ñu ne ah weer wi feeñ na ñu fab ay kano kanu moom la ñuy moom la ñuy rëkk dóoru kanu nga dégg kënu bi këŋ waaw këŋ su ko defee ñëpp daal ne ah weer wi feeñ na kat suba la ñuy woor na ñëpp woor foofu du am benn différence waaw waaw su fekkee ne wóor nañ ko ah homme de science yi seet dañ ko mufti yi seet nañ ko ah les autorités seet nañ ko gisuñ ko ah ah ñu ne kat euh, suba kenn du wori ndax seet nañ euh, kii bi weer wi mais kenn gisu ko macha allah yaakaar naa mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers Thiès Info mm. euh, euh, loole leer na nañ euh, gindi nga ñu bari ñi nga xam ne donc xamewuñu koy woon noonu imaam ñu jeexalee benn benn benn laaj mu jëm ci xutba yi nga xam ne moom la ñuy amal ci ci jullik tabaski mu mel ni ci kuréel gi nga xam ne ci ngeen bokk mu mu mu ëmb ulama yi ak imam yi ci réewum Sénégal mm. mel ni dañuy méngoo saa su ne ci xutba yi nga xam ne moom la ñuy amal mm. liggéey la bu ngeen di def yéen ci ci kuréel gi wala dafay nekk loo xam ne rek day tombe hmm, xam naa yaakaar naa ne yëf yi sax day tombe day tombe puisque ñun ñëpp ay ay ulama lañu ay imam lañu te imam am na nu mu yége aalim tam am na nu muy yëge boroom xam-xam yi ah ku dul ñooñu sax am na nu muy yëge su ko defee lu ci bari événement yi la topp rekk événement yi ni mu xawee noonu la ñenn ñi ah, ñi ëpp moom lañuy ñuy xutba waaw du càggeenu ordre bu ñuy joxe ni ñëpp te loolu sax moo waroon a am waane du noonu de waaw dañoo waroon wax su fekkee ne am na benn mawdu benn thème boo xam ne dafa xew wala benn xew-xew dafa xew ah ñu ne ñu ne na ñëpp na ñëpp xutba ci lii waaw comme dëkki arab yi ni ñuy def fa ma nekkoon ci Égypte yi ah suñ daan xutba hmm? même ajjumaak yooyu yëpp dañoo am tëb bu ñuy xutba foo dem ci juma bu nekk thème boobu la ñuy waxtaane njëriñu xutba bi waaw bésu tabaski bi waaw njëriñam bi ah njëriñ bi mooy xam nga dinañ xutba lu tollook ñaari yoon ci feet bu demee noonu lu demee ni tabaski lu deme ni korite te léeg-léeg juma juma mooy nekk seen diggante jumaa yi waaw su ko defee euh, tabaski dañoo war a xutba ak yeneen yi sax dañoo war a xutba événement yi nga xam ne moo moo moo xew mën nañ cee waxtaan waaw xutba bu nekk rek noonu la yonent bi xutba bu lu amaan rek lu xewaan rek day yëg minbar xutba nit ñi ne leen nii lañ war a def nii lañ war a def waruñoo def nii waruñoo def nii fii mu ne euh, euh, tabaski war nañ cee xutba li nga xamee ne mooy góor jigéen yi normalement li xew ci góor jigéen yi li xew ci sàngare yi li xew ci euh, réseaux sociaux yi nga xamee ne dañ ci wax wax yu bon di xas kilifa yi di saaga autorité yi di wax lu bon loolu war nañ cee wax war nañu tam euh, souvent jàjji ñi nga xamee ni ñoom ñooñu ñoo ñoo ñuy gouverner jàjji leen xamal leen li nga xam ne moom lañu ñu war a def ah yoon wi nga xam ne moom la ñu war a suivre te xam ne suñ ko suivre sunu euh, sunu sunu réew dana baax parce que ñoom it ay politiciens lañu ñoom xamuñu lan mooy seen politique xamuñu fu ñu jëm que parti bu nekk ak sa sa façon politique kenn xamu ci dara waane nag war nañoo indi jàmm war nañoo indi loo xamee ni euh, Sénégal dafa war a avancé war nañoo indi loo xamee ne dañ leen di mettre à l'ordre ne lii la euh, dëkk bi nangu bien que dëkk bi site lañ fi woote waaw bien que laïcité lañ fi woote waruñ koo woote ba mu jeex puisque suñu seetee ne quatre-vingt-quinze ou quatre-vingt-seize ñëpp ay jullit lañu ñi ci des am na ci euh, pourcentage boo xam ne ay chrétien lañu kon euh, euh, réewum diine la soit islam wala christianisme fii ay athée ki ay animiste ki tuuti ñoo ci nekk loolu bariwul te ku ko nekki da nga ko fee indi waane bariwul waaw ñi ci ëpp ay julli lañ kon nag war nañu souvent di gendiku islam bi di gendiku euh, li nga xamee ne mooy mooy mooy euh, euh, religion yi yooyu yëpp xool leen seet leen du wàññi dara puisque ñoom ñooñu ñu mën a doxal diini lañu lu ñu mën a doxal réew lañu waaw ñu ko mën a doxal la su ko defee yooyu yëpp nag xutba yooyu yëpp day accès mën naa ak accès ci foofu te sax nit ñi duñ ci déggoo waane seen xel yu rafet que ak seen njàng moo leen ci yóbbu rek waane du ñu wax na nañ wax ci bii thème wax ci bii thème comme dans les autres pays euh, pays yu yu yu diine ya ah puisque soo demee Màkka moom euh, obligatoirement thème bi ñu bind moom ngay wax soo demee Égypte tam souvent noonu la soo demee Irak tam lu ci bari noonu la waane nag Sénégal du noonu Sénégal ñun dañuy yëg rek daal di bind suñuy kii ab na ñoo xam ne tam xutba yi ñuy xutba xutba yi nga xamee ne maam Cheikh Al Hadj Malick wala maam Borom Touba wala ñu demee noonu mag ñu baax ñooñu ñoo bindoon yooyu xutba ñu dikk rek di ko xutba di ko xutba waaw waaye nag am na par contre ñoo xam ne ci temps yi ñu tàllu suñu bindee xutba tam dañuy kii dañuy xutba actualité waaw boole koog diini boole koog charia jërëjëf kàddu gi mujj gi ah, ah xanaa di ñaan yàlla rek ndax loolu yëpp suñ koy tam jàmm rek lañ ci bëgg réew mu amul jàmm réew moomu du dox réew mu amul dëgg réew moomu du dox jàmm ak dëgg ñaari arme lañu yoo xam ne dafa dañoo baax ci réew waaw te lépp lu koy indi rek war nañ koo war nañ koo saytu waaw war nañ koo saytu ci moytu di wax loo xam ne day jaxase société bi wax loo xam ne day jaxase réew mi di wax loo xam ne day jaxase jullit yi waaw am na ñoo xam ne ñu ngi wax di jaxase jullit yi te waruñoo jaxasoo waaw li may wax affaire yi tariqa beeg tariqa yeeg yooyu am na ñoo xam ne ca li ñuy jaar pour jaxase nit ñi hmm? te loolu waru te ñun ñëpp islam la ñuy woote ñun ñëpp alquran la ñu gëm ñun ñëpp xibla dem Makka soo demee Makka euh, suñu demee ba Arafa doo xam ne kii murit la doo xam ne kii ab tijaan la doo xam ne kii layen la doo xam ne kii xaadir la doo xam ñëpp benn la lañ fay exiger la fa yonent ba def moom rek la ñëpp di def taraxlaayu benn taraxlaayu allahu akbar ji nekk benn Euh, labbayka allahumma labbayka ba nekk benn euh, ñu jublu xabl euh, kaaba nekk benn arafa ñun ñëppay taxaw nuroo benn lañu kon amul benn différence waaw nañu góor góorlu ba saay-saay ak ñi nga xamee ni ay ay nooni lislaam lañu dikk fii yàq sunu réew ah, juwaat lañu nii nga xam ne mag ñi noonu lañu ñu sampee woon islam bi ci ci ci Sénégal boobu moo dox ñun ñëpp war nañ cee taxaw bu baax ngooyu ci bu baax a baax baax ba am am jàmm am dëgg am développement de de du Sénégal. jërëjëf yal na ko yàlla def bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi jërëjëf imam El Hadj As Barou Ndiégène imam ratib ñu ngi lay sant bu baax di sant ñi nga xam ne également ñoo ngi doon suivre à travers Thiès info point com euh, di leen ñaanal nag euh, julli gi nga xam ne moom la ñu dëgmal euh, yal na suñu borom jéggal ñi suñu bàkkaar yu njëkk ak yu mujj defal ñu ko ñu fekk ko te it fekk ko ay at yu baree baree bare jër ngeen jëf woy leen également di abone si seen seen Thiès info point com jër ngeen jëf